motion de censure bi moi juste avant ma yéeg j'ai j'ai j'ai communiqué avec un député motion mhm. de censure bi nekku ci ci règlement bi léegi. no article quatre vingt cinq am nga règlement intérieur nga génne ko en direct nga xool article quatre vingt cinq règle euh, euh, règlement intérieur bu assemblée article quatre mooy wax ci motion de censure. waaw mais li ma bëgg a wax mooy c'est pas une obligation nekkatul obligation c'est-à-dire bi ñuy bi ñu dindee bi ñu dindee premier ministre. waaw bi ñu dindee premier ministre ba delloowaat ko. man j'ai suivi euh, Mamadou euh, Diallo le député Diallo Mamadou Lamine Diallo bi mu leen doon wax ne que euh, le le retour du du premier ministre dafa am aussi yeneen yu mu àndal yoo xam ne nekk ci delloo delloo ngeen ko mais delloo woo leen yeneen dispositif yoo xam ne moom moo ci nekk kenn faale ko woon période boobu c'est-à-dire que man fii li ma fi gis mooy ay acte politique rek la ñuy poser de part et d'autre man bu quand c'est politique j'en parle pas mhm. parce que c'est des questions politiques avec des réponses politiques parce que ñoom ci seen biir wax dégg naa aussi ñuy wax ñu soulever ay point yu bëri yoo xam ne ay violation la yoo xam ne euh, le président euh, du de de l'Assemblée nationale daf ko def c'est-à-dire euh, respecté wul. ay modifications waaw ay modifications yoo xam ne def nañ ko. Mhm. ay requêtes yoo xam ne ñoom def nañ dugal nañ ko. te li jë li jën li jëntiwuñu ko. modification modification bi c'est sur sur sur le le kii bi le euh, le retour de. de du premier ministre bañ ko delloo c'est pas avec les textes yoo xam ne moom moo fa nekkoon bañ koy génnee. ah bon waaw. mais mais mais est-ce que nañu modifier règlement intérieur Assemblée nationale sans que les députés soient au courant. mais député yi la sa yow. ce que ce que j'essaie d'expliquer mooy xam nga bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu delloo siwaatee bi ñu delloo siwaatee euh, le premier ministre euh, ñoom ñu ngi leen doon signaler yenn manquement si texte yi. Ah. manquement yooyu ñoon ñu doon signaler ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas voulu compléter ça. parce que dafa leen dafa xam nga lu ma jaaxal xam nga lu ma jaaxal. pourquoi Amadou Ba si même kii bi mu def déclaration politique générale et puis ñoom ñu dépose ñu am chance déposer motion de censure mhm. tout en sachant mais moom laa lay wax c'est politique. waaw ça c'est ça m'étonne c'est pourquoi je te dis man man foofu laay waxee yow tu es tu es tu n'es pas politique ñoom ils sont politiques moo tax man je dis quand c'est une question politique là man du ma du ma ci sori parce que c'est des actes politiques c'est des réponses politiques. Mhm. ñoom ils ont pu utiliser ay subterfuge par mhm. rapport ak ay ay ay ay vide juridique mhm. yoo xam ne moom moo nekk ci règlement assemblée nationale pour mën a poser des réponses politiques mhm. par rapport peut-être à des frustrations si si ay ay requêtes yoo xam ne ñoom dugal nañ ko te kenn amul suite ça a été leur moment ñoom aussi ñu ñu poser des actes juridiques donc c'est entre ñoom ñoo xam maintenant les les appréciations ku nekk di nga xool li ngay apprécier mais quelle que soit la la posture des uns et des autres que ça n'empêche pas le, le, les choses d'avancer parce que Sénégalais il y a pas que la politique dans ce pays on a assez parlé de politique maintenant toutes les stratégies politiques yoo xam ne ça se prend de part et d'autre là que ça n'empêche pas la bonne marche de ce pays là c'est tout ce qui m'intéresse tout le reste là c'est des détails politique parce que autant nga mën a gis ci ci au sein de PASTEF ils utilisent euh, les textes euh, à leur à, selon leurs intérêts autant nga mën ko gis fële aussi ñu jël ay décisions en faisant fi de tout ce qui est règlement intérieur de l'Assemblée nationale on l'a vu durant toute la la magistère la la législature boo xam ne. moom la nekkoon donc. alors euh, ñoom la rek man man bëgg